just waiting for this semester right here. maa ngi xaritu sàpp dégg ndaat saay soo déggee dexim si pasi pasi man la dee jógee. It's time for Semester Avenue. Let's have time. Let's have fun. ngeen def Gambia Talent hello Serigne Japa Chole indi Gambia. bu ma doon ñëwee fii jaar na more than five different airports yi waaye amul airport boo xam ne laaj nañ ma ma fay xaalis. lu ma si gën a naxari ma ñëw suma oon dëkk fu ma juddoo fu ma yaroo fu ma liggéeyee may fay xaalis loolu jaadut. voilà naka woon sa holiday. it was all I seen dëkk baa ngi naaj bu affaire yi naka la ngelaw bi mu ngi xalaat fuuf ak yooyu noonu. foog naa ne perfect time ak yooyu. dama jos ñëw rek dama dama ñëw ñëw ma holiday dama dellu si. dama dellu si. so I left here since uh-huh. so maa ngi a ñëw nii. domoda. <laughs> man durang durang waaw you lekk it with loxo or with kudu I eh, with hand with hand ah, sama saan hand ah, maa nekk borom boos ban boos maa nekk sëriñ cappaacol borom ba maa demee boos ko xoolul ma ne yow ne gisoo dara gis nga fii ku fi ñëw rek xam ne ak assalamu mbokk bokay faral di setan Gambian Talents TV di len di wax ne yene a setan li nga xamne mo nek sen favorite show di Semester Avenue <laughs> di len ko andil nak bes bu neka ak saturday ngeen topasi si Samba ak timam bi tay nak man ñew la laajte len kan mo ñew Nabi ya ñew tay Nabi ya ñew Fass Samba ak ma len da ha parce que amuñ pass <laughs> tay ñu ñew am pass ñoo ñew war leena nak ñuy dem. ak ñuy ñëw tey nag dara du yomba ma bàyyi leen rek fa Fadiouf nuyoo bàyyi ma kof ma bi si moom maanaam comme nu ma ko waxee mbir bi na mu ca yóbbu ca la ku ñu ca bambax ñu jël tey nag xam nga lu nar lu rëy bàyyi ma ñamal leen ko tuuti rek te bëriwul mooy lan jambu daxaar pëcca limon riir suñ bëjëk naan suñ bébaroo taxaw rek di leen di xaar fas yéene indil seen favorite show di Semester Avenue kon nag tey dara du yomb lu nar a yomb rek si yéen la wax naa leen Fatou Samba moom tey dan ko xalal ak beeg tey <laughs> Fatou Saba dañ ko faya moom ak baabu yëpp dañ leen faya amul paas ko amul paas nun koy boolee suñ mbir moo ma jaaxal faya rek ñoom sax dañ dee am paas ñun ñoo leen dee may paas ñuy ñëw soo tey nag dañ nangu suñ xaalis nangu suñ paas ñëw na def bem teg sa bum ba rëbb sa rëbbas rëbb sa rëbbas bum <laughs> suma suma jabar laa gunge si dafa ñibbi ah sa jabar nga ñëw gunge léegi moom dafa ñibbi bàyyi la fi wala moom man afta laa dellu one month laa génn afta ah, moom man dëkk la jóge Belgium ah naka waa Belgium Very fine, good. Man, man for one almost 13 years. 13 years in Belgium? Yeah. Okay, that's fine. That's very good. You're watching Semester Avenue. Thank you so much. Thank uh, nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you so much. How are you? Fine, thank you. What's your name? Renat. Uh, which country are you going? This is my husband. We go to Belgium. really? <laughs> yeah. You love Gambia? Uh, yes, yes. I love my husband also. which African food did you love the most? Hmm, chicken domuda. chicken? Domoda. Domoda. Yeah. You eat it with spoon or with your hands? Mm, with spoon. Next time try it with your hands. Mm. Thank you. Thank you. Hi. Gambia gamba bas lalen indil. Tadi dañ ko fekk si airport bi te dañ ko indi tamit nag maa ngi ñibbi so la moo leen si airport bi just dama ñëw gunge suma oncle dafa war a bag. baag ba Gambia maa amal li nga maybe January first maa ngi am seven artistes yu nekk di jógee America pour ak England maa am free show January 6. kaale ngeen fekka ñu airport. so ngeen nar si décembre su ma ko waxee comme Gambia dañoo ñëw si suma bunti sob bi di ma rey ak bu bëri fekka leen ma January 6 pay a si fiil bi. yaa wali soo naka nga gisee dëkk bi. pay caapan. nga bëgg ma wax rek waaye su ma waxee non waxal rek waa léegi nag ma explain ba ban ban type naka nga gisee dëkk bi naka nga gisee ay démolition bi parce que dëkk bi fii lu fi yàqu ñu defar ko yow yaay gamba wax ñu bi yàqu bu nekk di yàqu nii mënuñ koo teel a defar de li dafa nekk di métti de mu ngi ñu doxee dëkk da ngaa capa ki nga xam mu ngi dunda di bit like seven years mu ngi dajale loon ci ami beneen bi school ñëw sampa sobaam def lu moo def ñu ñëw ñu tas ko loolu dafa métti de man tasuñ suma sob bi de waaye dama am stress bàyyi loolu de maa ngi laa wax lu dafa uvala métti ba pare dëkk bi tamit ñu ngi nekk di boba dañu génn dem tukki lolou yeb du solution ñun suñ tukki suñ doomi dañu dañoo bëgg a tukki ñooñu ñeneen ñi kon du mu sax baax ñun tay suñ toogee ñu jox mu sona ñun xam nga mu miti ñu nekk di struggle mais bi suñ doomi suñu fa yomba moo tax bas éviter ñu amal len free show free thing free everything pour lan suñ yuut ci suñ ñëwee ñu mun koo enjoy artist yi ma ngay ñew ak lu dof bañ leen ma sa ko bas mu ne ko free everything pam January 6. Tegal leen ñu spy ba si fii moom it dama laa invite nga ñu interview artiste yi benn ah ok japanese chinese yi tubaab yi ku nekk nga. interview mama an ko ci njong wa. dégg nga boobu tey. meri pàcc hee jumóori oh. yo. daañu impo. in the airport today? Um, I'm going back to the UK. Oh, you're going back to me? <laughs> yes. How do you see Gambia? Lovely. I love Gambia. Uh, which food did you enjoy the most? Being with my where is he? <laughs> He's gone. He's not being with my husband. So, which Gambian food do you enjoy the most? Uh, Benachin. Really? Yes. So you eat it with spoon or with your bare hands? With spoon. No, next time try it with your hand. I will try it with my you hand. What is dahar? No. Dahar, you take it, you... you <laughs> no, I haven't tried that one. so you cannot speak Wolof? No. Naka nga No. Said Jamarek. Jamarek. Naka Gambia. Oh, Gambia mingi nice. Oh no, you're not getting me. Gambia mingi nice. <laughs> Gambia. Mungi. Mungi. Nice. Nice. <laughs> Thank you. bye bye. Just. <laughs> Thank you. Bye bye. Yo nanga yep. Mayo okay man. Yana kana tuda? Man kamu rela la tudé no. So lan mo la andi test airport. Mané suma jigéen la no. Uh-huh. Yeah. so ñoom dañuy dem bàyyi la fi nii. bilaay man gis nga de boy loolu laa nekk di fil nii say ah, noonu. seddaay bi. Eh, I'm telling you man. <laughs> Eh, it's unbelievable. so enjoy ngeen holidays. yeah they enjoy holiday you know. very beautiful and nice you know. okay. yeah Gambia nice you know. yeah. so we hold it like that you know. you know. thank you. thank you. all right. My name is Mansuk. So what brought you in the in this airport today? My one of brother is coming from India. Your one of brothers is coming from the US. Yes. So you are waiting here. here. Yes. So how do you see Gambia? Gambia I see good. Yeah, Gambia I see good. Yes. Which food do you like the most in the Gambia? I don't like nothing in Gambia. <laughs> Uh, why you don't like nothing in Gambia? Because I don't eat nothing Gambian food. Okay, speak Indian. I can also speak Indian. You cannot speak Indian. Speak Indian. Let me see. That one is not Indian language. That one is Dubai. Ah! mu ne boobu Dubai la ok speak Wolof after me naka nga def. we don't speak Wolof. said naka nga def. we don't speak Wolof. try it. no. you said naka nga def. we can. I know you are my friend you see we look alike we look alike. say just mention naka nga def. we can understand we no understand. just say it naka nga def it's simple. we cannot speak how can I understand. yeah. you know go school you know how to pronounce. yes. Fofa toj man ñii xonk noppi dal ni rek. Iraq. thank you. kii moo nekk xëy Michael Jordan you don't know. xanaa xamu leen kii. xanaa xamu leen kii. borom QTV nga eh, yab dina nga def. fi. xëy jëlale ma sansen buwaat man ngay yab xam nga mbiram. naka nga tudd. xam fan la andi tey si eh, airport bi. ah lan gan yu maa gunge. ah keñ gan yi ñoom ñibbi noonu. waaw dañoo ñibbi. ñu bàyyi la fi nii nii rek. ah waaw. ak seddaay bi. ah waaw ah naka laa koy def man fi moom a gënal foofu sax su fekkee ne. Ah. comme nu mu war a demee kay. yu si am ye. kon naka nga gisee dëkk yi. ah alhamdulilah am nga wax bi moom dafa bari rek waaye. ñu yëpp il faut ñu bokk rek. dëkk bi ñu ñoo ko moom ndadu. criticisme bi moom du jee waaye da ngay critiquer nga bokk ñuy defar ndadu. criticisme kese du yóbbu dëkk. da ngay critiquer ba pare nga ñëw bokk ñu nga xam ne ñu ngi jéem a travail pour dëkk bi dem si kanam ñu liggéey ko ndadu. waaw ah, loolu mooy ah, uh-huh. so da nga dee wàcc Semester Avenue. ah non non non waaye never dama ko dee seetaan nii waaye mosuma faa wax. waaw bis ni ki tey nag. dee seetaan Semester Avenue Gambian Talents TV. xam naa dama dee seetaan maa a fooloo na man maa la gis xamee naa la dama la gis rek xam man suma suma rab gaaw dañ la seet rek ma xam ne ko dee seetaan. <laughs> Ah, ok no problème all right dégg naa la. <laughs> thank you so ok ñoo ko bokk. man Mohamed. Gambia. man den ma rusloo yéen. leen ma rusloo di gambien noo tudda mohamed li ko ko wax xaru man fakk ma ñibi li mo tax fa sama di teeteel nan amul pass si bañ de waaye baxna man nom jom amuma ko bro na nga def fi na na nga man sanu la tudd ah ñu ngi la gis ya ngay dem nan ngay utitee ci airport dañu tukki dañu dellu ban dikka ngeen a dem ngay dem france ay yow France rek man maa foon almost thirteen years. ah ok France si France. <laughs> si boori Mangoy. si boori Mangoy ah man saa boobu moom xaw ma ko nag. amuloo seet. non saa boobu naka nga gisee Gambie. Ah, neex na ñu ngi ñëw depuis novembre. depuis waaw so da nga fi géejoon a ñëw wala. non last year maa ngi fi woon nag. waaw so yéen décembre bi jeexagut sa ngeen liggéey moo tax. Ah. waaw moo tax duñ mun a lu yàgg tamit. ban Gambian food moo la gën a neex. ah man léegi naa ceebu jën ba doyal de. waaw <laughs> dafay loxo wala kudu. <laughs> Ah, waaw léegi naa ko ñaar yëpp. Ah, beneen yoon del continuer loxo bi baax na si lool. waaw baax na si. <laughs> thank you madame ko jël ki yaa ngi leef nu ñu lay naka lañ lay baale yaa ngi leef naka def. waaw sa rasta bi dafa rafet. <laughs> thank you so much I am Buuba. lan moo la si airport. non dama ñëw seet rek. ñëw toog nii rek ñëw toog nii rek. <laughs> lu waral toog bi. non suma boy bi jabaram laa gunge. Ah, waaw kon di ngeen wedde. just wed. so naka Gambia. it's nice I love Gambia. it's peaceful country and the people also are lovely I'm Gambian so I love Gambia it's my homeland. yeah. Gambia au homeland. <laughs> you are good. kii mama, mag la man ak moo den mana nduroo sax naa def man ak den dee de. Ya akan kan den dee. man parce que suma manga no def. Ja wala yaay. No tuda. golden. waaw yow yaa ngi dem ni. maa ngi ñew. Ba mo ñew one seconds. Ruslo wa neen ma two times. Ñaaru yoni gatché. I'm fine how are you. Yes, I, I'm fine. Gambia, I find. What's your name? Yes, Pavel. So what what's you in the Gambia? Yes. Today, today, today. Ami wala, nabiya, Wa nabiya yo lula dal? Dama naps. <laughs> Man jomina nabiya, nabiya naps sa kota hatok ni minuku jomia grasta. ja ja Rastafari ana rasta yi ñoom Rastafari fu ñu nekk si ban dëkk sa ak Jamaica ok mbokki nabiya yi ñu nekk jaamane ak Jamaica kaay la jël seen seen mbokk bi moom dafa frustré nee na moom dafa sonna si ñëw airport te kenn du ko yóbbu mu ne moom gele-gele sa géej na ko dugga ndax bugg pileen rek <laughs> jàppale leen ko waaye bu leen ma fi bàyyi nag man may xale si bi dat <laughs> ma seeku sax eegu ma lu a eeg pileen moo tax mënu ma dawal seekul mënu ma dawal moto man daa naa dugg a pileen rek. fii ba senegal sa bëgg nga. xay ñu ma dugg sax mu wiri waar <laughs> moom daal mu ne na tudd pileen rek. na <laughs> tudd pileen rek. <laughs> mu abal ma may ma ni ma toogee rek ngeen war a xam ne man dama na ma pileen man naa duga rek mu wiiri waaral ma rek ma ma xam ne pileen laa duga rek ah, ah ma mun a wàcca si moo tax tey ma aaye fa sàmba nangu suma paas bi parce que toog naa ne ko su ma la mu ne su ma la mayee paas mu ne ma ko mayee paas moom dinaa dem ma may naa ko paas ba soona mu ñëwul moo tax ma ñëw ma ñëwaata mu ma foog ne dinaa duga gis loo fuñ ma teg ñu jël ma rek teg ma si boori fulaawa <laughs> ah ma mel ni meebal waaye toppal ñu rek Gambian Talents TV ñu génnee leen luy xew yëpp. bàyyil ma suma may nii man na man mii may waa da ngeen naa daw Gambie ñëpp a daw man na lii man mënuma ko gàcce bi ñu ngi maa rosloo ñetti yoon salaamaaleykum anti bi ak sa neesee bi bee loolu oui oncle baby bye bye yow parents <laughs> Ndeysaan Ah, tada. kan man Fall Wa do taxaw ñu waxtaan sax xanaa ana Google ñu waxtaan bu ga ñu waxtaan dang dee seetaan semaine saabe ñu dama ko dee view ni rek waye ah. musuma ko seetaan ya so ban dëkk nga kan nekk di dem ah Belgium yow ak sa jabar nga andal wala non <laughs> Ma suma jaha. sëyuma. <laughs> soo soo décembre bi di ñëw yéen semestre ngeen naa ñibbi. Ah. ah man dama dee xeet pour ñëw décembre Gambia. lu tax loolu. because of uh, lu ñu ñu foog la lu ñu dee wax semestre ba ba ba it's all si man laa wax de because of uh, ku la ne Europe neex na waxul la dëgg understand nga so nga liggéey sa hours. nga ñëw benn uh, how to call it benn one week you blow everything so <laughs> ñu des fii ñooñu la ñoo naab seetloo ñooñu foog ne Europe is paradise but Europe is shit to be honest to Europe Gambia fii moo ko gën hundred percent soo gisee man laa wa des man suma maas yi soo gisee ba léegi maa ngi Europe moo nekk ne ñaaka xam moo ma teg Europe benn tey ak leneen moo nekka ne how to call it su ma fi ñëwee everybody dafa foog ne soo demee Europe you got to be rich te loolu that's a lie ñun we are just there for our family not for ourselves so ku la ne Europe neex na waxul la dëgga so lu ñoo wax ne how to call it eh, semester night eh, December is all bullshit is all bullshit because of ñu nekk ñu nekk euh, suñ raka yu nekk gannaaw ak suñ brothers yu nekk gannaaw ñu foog ne well ñu ñu ngi nekk paradise no we are in hell te ñun duñ ko wax te am very happy ma taxaw di ko waxtaan tam lan nga am nga ñu nga xamante ne ñoo nekk seen rakkay seen magi yuut si ñu xamante ne ñu ngi rey seen bopp si bàkkuwe bi ngir bugg a dem rek man lu may wax gars yi rek moo nekk ne ok su nekkee man rek la kenn warut dem Europe fii mun nga fee tekkee because of fii soo fee nekka di di jóg ku nekka dina la bàyyi o bi di nga am sa famille ñu la mais bi nga leen a dimbale waaye soo nekkee Europe is you are there for everybody ba pare charity nga tey soo nekkee soo jugee ko Europe nga ñëw koo dajeel mu xam sa tur rek he or she think yow yaa ko war a jox te kooku moo tane so yo so de so jógee so ko Europe o nga nek Europe yo sarah nga hi family nga te lolou moy dega bi sis lolou moy dega bi yo sarah nga because ku nek ya ko wara defal yo da nga defal nit ñi sa be faté sa be pare yo so nek Europe nga del si Gambia amuloo dara lu ñoo wax ki mu ngi Europe ñaata ñaata at amul dara domi haram la o ko romba mune holal ko tabu nangam deyam bi mu ngi ñaata at hmm? munta sam paquet so demee nga dëkka hotel ñu ne hol ko so yo you cannot do nothing why fi so fi nekkee di try everything is okay 100% percent te yeen fakk na ne yeen nga ngi gis seen bopp def na yéen jaral na leen ngeen dugg jaral na la ko non dama rek xam naa ne you want to see there is hell sis man dañ ma ko doon wax góow ma ko waaye ma fa demee laa ko xam te my story te danaa si kaw lal jooy te kenn dóoruma kenn saagu ma ndey kenn waxuma lu ma naxari dama xam ne lu ma fi bàyyoon moo gën téeméeri yoon lu ma fekka foofu demeewuma baag wee nag wax dëgg neex yàlla te man si géej bi laa si captain la on sport fishing boat maybe i am new thousands of people ñu ngi leen they all know me si bij bi Europe is shit Europe is shit. thank you. bro. Mm. naka ma Babacar. Babacar. Ah? la. yes. interview two minutes naka so tey lan moo la andi airport bi. tey check si small family so I'm going back. You know. Germany. so Germany. it's very cold and there is lots of job all we do is walking walking walking walking and exercise our rights as a good citizen there or yeah. How do you enjoy your holiday? It was nice, peaceful as usual friendly as usual, and yeah, it was okay. So why are you guys going back and the December is not yet please. Yeah, because the December tickets are very expensive. So that's why we come in July and we leave our kids back home and they have to go to the school. But maybe because if you want to come, all of us, all the whole family is going to cost lots of money. So we rather send the money home and try to find another way of coming the reason why they're making the December ticket more expensive than the other Yeah, months. because it's um, school holidays and lots of people are going for holidays and they have to use the opportunity to like make more money, you know what I mean? yeah <laughs> thank you all right cheers thanks waa den fi fekk xale bu jongoma bu rafet Blackberry sista na nga def maa fine mën nga ñëw baaxee sa tur uh, maam Diarra tey la moo la indi woon ci airport bi dama ñëw collect guest from Tambacounda Yeah. guest bi sa la guest, suma guest la from the lodge, Tambakuroba Lodge. Yeah. So lan nga ñu mën a wax ah, si sa guest bi ñëw ak naka nga ko nekk di prepare. Ah, ñu ngi expect ne kon dina enjoy lodge bi you know and is a famous lodge called Tambakuroba at Kartom. yeah. So how do you see Gambia? Gambia well nice it's a smiling coast. Mm-hmm. thank you you're welcome jëlal ma sant bi bu ko fàtte jëlal ma ko waaw waaw jëlal ma aw fit ma tànkay waaw waaw ñu ñu laalati waaye dama jógee liggéey nag waaw waaw da ngay da ngay ci si tànk nii da nga def nii Look at me. I'm a chef from GTHI. I guess everybody knows me on TV. All right, let's. <laughs> Ah, sister bi ngay yow. Ku ko yow rek rus. Ngeen def. Sister bi ne sàmmee naa la. Ah, def. Okay, maa fi. Noo tudd kadi lan mo la ni tey damay delu tay ci bandika ngay del jamani sa nese bi yo ngay dem delul we wa baxna jërëjëf de wa december ba ngay dem ba ngay wa yo ngay dem wa degal kay dem fi yaga <laughs> lu waral lolu so femba la ah ci yow nga am jike wa ana alaji as nga nama wa lolu motax gi dogo wax nak <laughs> yaangi dogo wax so naka nga gisee gambe gambe neena torop ma sha allah so ban lek mo la gëna neex ci benn cin. Euh, loxo wala kudu. wala ba loxo loxo laa de lekkee. sa nit ki dafa mel ni dafa nama alaaji asam na moo tax mu ñuy forcé naa ñu bàyyi leen ma rek ma dem. nabi ya ñëwal ma ak sa rasta bëgguma bëri problème comme hiya xaaral man tam ma laal suma rasta yi. bu leen ma bileem na dama boy boy ben week bi rek la am. <laughs> mom dafa boy boy man na dama rasta te mom dafa def li nekkut li ni original kawar understand nga man na jaar rasta fara ana fancy rasta yi e bu ko nek rasta fara ana boy boy, yalla elek na la boy boy boy bu toj bu leen ragal loolu comme nga séeri fa samba gi non ah ken kii mooy séeri fa samba te te serem amul paas te di nga wa kan nga no kan parce que Fatama amut paas yi eh, da nga jël ma gen ah. gën haral oh, haral de fa samba eh lu tax doo ko mën a bàyyi. dafa compatible ba pare dafa rafet dafa mën a tooka. ah jël ma man Fatou Samba daf ma daaxa jël ma jël ma man Fatou Samba daaxut ma. kii du ma nopp muy jël Fatou Samba. dafa am lifin bi yow njool la waaye amuloo lifin. ñii <laughs> geneen ma réparé. kaa yooyu mënu ma see dellu dinaa ko dem uti déglu leen ma paa bi lan la fi wax lan la faa sàmba am te bii amu ko léegi toonal toon toon léegi yéen ay comment ñuy comment yéen yéen a war a comment waa ngeen leeralal affaire bi parce que mu ne moom njool na waaye amul lifin léegi moom bala mu ko doon bàyyi mu dem da war a leeral lifin bi waaye paa bi leeralu ko léegi waaw lifin bi lañ bëgg a understand lan la soo léegi dañ bëgg a yéen si comment section ngeen wax ñu lan mooy lifin lan la fa xam lafañ waaye yéen nag waxuma loolu de tey Faye Diouf dafay jaay ne koket la sol doxal ma miss mu ne ko xoolal ma Fatou nu muy doxee si si fii fa la ni waa sax si airport bi cekkees gin gin cekkees cekkees gin gin lan laa sol nag <laughs> carax <laughs> jëlale ma suma carax bi man carax laa sol faaju sol koket di ma jaay ne dafa njool man nag damay wone ne man dama gaata so ku gaata wune ne danga gaata ku njool wune ne da nga njool so nii lañ leen ko defalee rek awee Avenue ñëw nag def suñ tooxu tuxu xaleel tuxu réew. waa tuxu réew réew. <laughs> ñu ne ñu réew buy yaru. nen réew nan la. na yëpp yow. <laughs> mooy jëkkëri Nabiya. jëkkëri nabi yaa ngi woog tey moom dafa kontaan kontaan bi nga xamante ne hmm. nabi dafa egsi nabi ñaata yées amul paas jëkkëram di ko dojo paas tey nabi egsi kale kale kale naka la tuddaate kan ah Fatou Fatou ah, hmm. ah Fatou mooy tapale rek ah. ma jabar moom moo wax ne suma jabar amul paas man suma jabar dinaa ko jëndal moto. Ah, moom mu ngi wax ba mu ngi wax moom mu ngi ni ba amul kooku amul paas. maa ngi lóor si. Ah. moto nga may jox. yaa ngi ñuy gis. wante bandi boobu. Mm. def ma nax. nax nax ba àdduna yëpp am ne. mooy suma jabar. mu mu bàyyi ma dem sëy. mu dem mu dem sëy ak paa bu ñaaw boobu. mu gis fi jantal paa. jantal paa. ma xam nga ah, yàlla naa koy wax moo tax rek. ah waaye nabiya du du break sa xaat. waaye lu gàtta loolu. ko eh. oh, yaa nga wax ne sax man dama ko nopp mu bañ mu ne Fassamba rek. Fassamba Fassamba ñëw break dem noppi yoo jee. waaw Fassamba dem noppi. léegi léegi léegi moom moom mu nopp Fassamba Fassamba noppi yoo jee. <laughs> Anna. So you going home what? Yes. Which country? Back to Spain. Hey, my country. <laughs> I like Spain. Yeah, it's lovely and very touristic also. How like, do you see Gambia? Uh, the people is lovely and I have have very good time. Yeah. And the time in the beach was a uh, precious time. So which food did you like the, do you love the most? Uh, domada. Yeah. really? <laughs> You still... a woman. <laughs> With the fish and everything, yeah. So he's your husband? No, no, no, no. It's a good friend I met here. Oh. Very good friends that they were helping me always, oh. all the time. Yeah, that's very nice. <laughs> Abaraka what is that? Abarakabake. Oh, Abarakabake. Yes. <laughs> so, Sumole? Uh, Abije. Abije. Ibije, I don't know. <laughs> Thank you. Thank you. Bye-bye. papa bi de nee na man sama coquette la like samay coquette na bi xam naa sa xol dafa gaaw a tàng waaye kii de ay coquette rek la like lii. si suuf laay gu dërëru coquette. ah moo ma xaw a jaaxal rek. te moom fu mu jógee la coquette bi jógee di. Nabiya nag bul wàcc sama kalaas. yow coquette yi bàyyi man maa la abal coquette. nga ñëwee ko fi di am am lu classe ah xool leen ko de ma abal ko coquette mu ñëw taxaw fii nii di wane ma um, di di ma jéem a jaay sadik ak garaaw léegi nga sumi suma daale léegi xool leen ma damaa suma daale léegi nga ñibee tànki neen defal na sabari rek <laughs> dafay sumi waaw baalal ma léegi tey ma sumi waaw léegi ku la abal <laughs> a faar <laughs> lii lii lii nabiya war na ma koo def jàkk si da ngay jooy ma nangu mbobo bi sax maa la ko abal. dama koy sumi. am naa ne su ma la fi sumee moom. da ngay ma abal la. waa ma waaw yes ma laa bëgg a dégg waxaata. yes ma waxal bu baax yes ma. <laughs> salu <laughs> xoolal lii dafa neex nga abal li kii yëre di ko jaay doole maa ko abal soo sañsee bu rëy bi yëpp maa ko sañsee dafa war a wax ne man maa ko sañsee moo wowu ko moo tax ma meer bu nga nangu daala beeg mbuba beeg roba bi defar ne. yes ma lu sol yëpp maa ko abal windaalu. léegi windaalu. est naa ñeme windaalu. windaalu maa abal ñëpp xam nañ ne léegi maa la abal léegi da def ndànka ndànka easy easy soo deful loolu rek ma nangu ko. waaw acca nañ dem yéen a ngi follow ba léegi Semester Avenue ñu leen di génne luy xew suñ caméra li bi na duñ ko mën a fàtte gannaaw. cooro coor cooro coor faatu nding coor. borom borom cororo. Lamine Lamine you know, waaw Fatou Lamine la dëkk ñu wax naan kan Lamine Lamine ana waa Lamine seen loxo si kaw yee yow soo fit lu nga wax boo doon wax boo doon ma répétaat ko man maa ne Fat Samba da nga bari affaire waaw foofu nga yem <laughs> yow mbaam ak gàttaayam yaa ko gën a gàtta te amul paas nag yërëm leen ko bu leen ko jow lii jow la jow la waaye nag du ma nettali waaye lu ma yëg la boole man ko naa nga def. ñoo ngi sant <laughs> doo taxaw ñu naka nga tudd man Bambo. lan moo laa ni tey si dama ñëw gunge si suma goro bi laa gunge si. ah moom dem waaw. waaye décembre baa ngeen ñëw moo mi ngi ñibbi. waaw mu ngi ñëw defarle <laughs> mu ngi nii moom. <laughs> yaa la Tambédou. ah soo lan moo la indi woon Gambia. Mhm. suma doom. ñoo seeti njaboot. waaw. soo naka nga ko enjoy ne. Eh, enjoy naa de. baax a baax baax na. ok ah damaa dem naka foofu noonu. Maryland. Mhm. dafa neex. baax a baax baax. ah waaw waaw waaw waaw. <laughs> thank you thank you. leen si bi ñu dem te andi waat leen leen keks. salaamaaleykum. waaleykum salaam. na nga def. jàmm alhamdulilah. keks. so tey lan moo la andi waat si airport. Ah, maa gunge suma gan bi rek. gunge sa gan. waaw ban dëkk la may dem. may dem Jamañ. waaw so moom décembre bi jeexagoon moom ñuy dem. waaw moom dafa teel a ñëw na depuis novembre 13 mu ngi fi ba ah, daanaka décembre tey 13 almost one month. waaw mu ngi fi soo xam naa ne moom dafa ñëw rek vacance bi moo jëre mu ngi ñëwee. waaye gars yaa ngi laajte ba léegi nag jabar bi ñëwagul de. waaw léegi tee rek. Ah, <laughs> waaw léegi de kañ kañ kañ. non léegi tee rek yaagatu. Ah. <laughs> so naka nga gisee demolition bi right now parce que ku nekk di nga wax ne Keks moom ba léegi waxagut si fi démolition bi mi ngi noppi wala dafa faral gars yi lan nga mën a wax si non am nga loolu moom daa dafa man daal ay encourage it ah, definitely te foog naa wax naa ko si beneen fora bi lii loo xam ne daal nga ñun la ñooy gën a because soo xoolee ah, suñ yoon yi daal dañ xat torop because nit yi fu ñu war a dox ah, foofu la ah, nit yi di teg seen table wala seen palaas yi wala expand seen yi tax na ba affaire bi nit yi léegi fu ñu war a moto bi fu mu war a dox noonu nit yi foofu lañ dee ñëw so loolu daf dee congest trafic bi so with this expansion da nga gis ne léegi the roads are very free nit yi dañ dee mun a dem di cross di mun a dem tamit tamit mu taxu tamit ne the float of the vehicles yi moo nekk airline bi Uh, very fastly uh, so loolu the fighting, the fighting, économique economic, in terms of the movement of the people bi naka muna aga lige mën ban time xam nga naka la ñoo mën execute bi so loolu yep dafa nekk loo xam ne important torop so man uh, definitely support naa but government tamit encourage na and let them come with another alternative boo xam ne tamit ñoo xam ne place from sen Palace, yi te amuñ Palace, let them work with the council bi because ñun yëpp suñ liggéey la they identify a place for them build structures for them pour ñu mën a fa because seen source source of income before Fulanega. But so Lengene Fofo and you didn't create another space for them, right? And that means that you are create more burden uh, on them in terms of uh, Nakala Nyomuna Muna uh, help their families be. At a new bari uh, Fofo Lengene Fires and Domitian School be other family needs. So it will be important. Uh, so I think the government uh, they should come with an alternative for ñu mën ñi because my they will send interview eh? My just new joy jooy am na ñoo source of income be because of their single mothercy and family be rely on them solely so pour ñu mën at least create that avenue for them and I think government will definitely come with that but apart from that we welcome the uh, idea bi. waaye ñu si bëri ñu ngi wax ne démolition yi fi politique la naka nga gisee wax boobu. non xam nga loolu uh, uh, public space public space la xam nga lañ put politique aside loo xam ne public space la te gis nañ place yoo xam ne dañ demolish ñun we are living witness like example when you go to the Brikama market year before last when a fire incident loolu lañ war a use ato enter inside the market foofu lañ teg seen taabul yi te moto du mën a daw si kaw taabul yi mu dem si faya bi soo dafa taxaw amu ah, gis marché bi yëpp mu ngay taal bee affaire yëpp soo lool lañ bëgg a ah, pour stop loolu moo tax ñu ne léegi fu mu nekk nii koo xam ne yaa ngi toog si ah, biir marché bi te yoon la it's an access road ah dañ leen war a génnee foofu ak yeneen place yi even ñun suñ kootu area bi dem Latrikunda Jaman area bi terms of emergency ambulance bi wala anything su the same thing la even like you go to Brikama like uh, moo Serakunda, si boori syndicat bi a help post boo xam ne moo health center but su again waree génne emergency take them 45 minutes to clear the road pour you dawaa emergency Be Banjul if that person need only 30 minutes to reach at at least a major health center then that means kooku dina si because of people went and encourage public space so Lolo, I uh, can waru koo encourage You uh, at least ku nekk na nga sa morom borom bi cër foo xam ne nag loolu la neen bu yoon bi tamit nañ ko bàyyee fo di paay sa baay ak moto pour ñu mën a dem suñ defee loolu rek Gambia dina ne ñun ku nekk mun ngaa dox sa business bi in a smooth environment. So Kex, what is the latest news in the court? waaw dëkk bi moom <laughs> am nga ne moom ah, ñu ngi nii fii rek am nga Gambia moom every now and then ah, am na yoo xam ne daal ñu ngi ko waxantoo fii si dëkk bi fii but presently am nga ah, ñun ñu ngi si code bi daal ñu gis am nga yoo xam ne moo nekka di dew moo nekk Ousseynou Bojang moo xam ne moo rayoon para ñaari paramilitaire allegedly ne moom moo ray ñaari paramilitaire yi jamono bi boobu moo nekk because new moo ñëwoon because news bi ba mu génne woon de was a divided opinion in terms of kan moo ko def ak kan eh, ndax moom moo ko def wala demul am na ñoo xam ne Ousseynou deful ko of moo tooga seen on plan bi am na ñoo xam ne ne Ousseynou moo ko def ah, démba gis nañ police commissioner Sow koo xam ne ñëw na foofu moom daanaka moom moo nekk koo xam ne daal actually ah, mo am fausse information bi te na ba jululu ayin Sénégal foo xam ne ah, Sénégal military bi hand over nañ ko Ousseynou ana according to moom si biir moto bi buñ doon waxtaanee noonu Ousseynou confess na wane ko ne moom moo ray understand so explain na so many things yoo xam ne daal other witness yi bu ñëwoon foofu in terms of description of Ousseynou la sol ñoom yëpp euh, so loolu change na euh, moo nekk bi léegi fu mu nekk ni ñoo xam misconception bi léegi ñu ngi ñëw gisaat am na ñoo xam ne ba de still position still questioning and uh, almost witness so far five witness moo ñëw yaakaar nañ ne daal affaire dina leer uh, because ñi uh, people ñoo xam ne they serve the country te on the duty of the nation lañ rey so Gambian ku nekk dafa war a sa soxla sa ite pour ñu gis justice prevail those people because they are people that we are serving our nation to protect our lives and our property. So ñoom we should not put politics there but then you want to look at the interests of the nation And ñi nañ justice bi so little money on the door, but I hopefully uh, uh, through dina justice dina uh, prevail and we all know lan more transpire. Thank you. Jere jërëjëf I'm so grateful. Thank you so much. Jamara. <laughs> <laughs> man Arms. so lan moo la andi tey si airport bi. Eh, damay tukki. ban dëkk nga nekk. Eh, Barcelona. Barcelone. waa kii baat na de jëlal ma kii. nu mu baatee. ak ceen yi. Ah. jaaru yi xam nga sa a sanse. yow di nga ma jàngal du question sensé dama sol lu diis because maa dem si seddaay. <laughs> yaa dem ba décembre bi jeexagut yéen ngeen naa ñibbi. non bëgguma dama nar ñibbi sama doom bi parce que dafa nar a ah, naka nga gisee Gambie. Eh, nice. so ban lekk moo la gën a neex Gambie. Eh, maafe. la nga koy lekk ak loxo wala kuddu. Eh, ak loxo. <laughs> ok thank you. dama la seen file la mënatuma taxaw. <laughs> bàyyi loolu waay. yow rafet nga de. jërëjëf na nga def. soo ah ban dëkk nga nekk di dem wala nga ñëw gunge dama ñëw jël ci suma maam. ah yow yaay xariti maamam. ana tudda Habibatu batu tudd. ah keñ batu? Kamara. Kamara. waaw. ah soo sa maam bañ dëkk lam jógee. Amérique la jógee. wa jël si sa maam sa maam bu gor wala bu jigéen. sama maam bu jigéen. jël si sa maam rek nga sante ni jëlal ma sanse jëlal ma ko koo ba suuf. jël si maamam mu sanse san non bëgg naa liis jigéen day sen sanse la la rafet lool. jërëjëf macha machallah chat hmm, jërëjëf. diwru béyku fayal mako man bu len balen suma indi indi suma ges bi ngeen ngeen ma de rusdo man nabe leg ma fayala so ah, naka nga gisse Gambie bi ak semestre yi demako ko bi parce que ñu ne décembre bi ticket bi dafa seer <laughs> loolu laa dégg de wa du len téré ñëw nak wa du len téré ñëw parce que ku de kam dem xam naa ne dina liggéey te xam nga ne baye sa kër dem fene lo mun di liggéey ñëw sa dëkk tamit holiday lu nekk jar nako so ticket bi lim ser ser gay gars ñew <laughs> so lan nga parer pour sama ma maam ah it's been years na gisuñ ko so man ak suma ñëw uncle ñoo ko ñëw jël si so we are very happy that she's back home and she's going to be back with the family so. ok thank you. thank you so much. salaam. la seen ah. Bob Bob. nga tudda Bob. si benn dëkk laa jógee la. <laughs> benn boobu dëkk bi dëkk bi loolu la tudd. waaw dëkk bi dëkk bi léegi after dëkk bi dëkk bi turam lan la. dëkk bi dëkk bi la tudd. dëkk bi dëkk bi. waaw. so lan moo la indi dëkk bi dëkk bi Gambia. ah suma suma family moo fi nekk lo loolu moo tax ma so waaw. ñu ngi dégg ñu ne this time dixième ticket fi daf day over seer lu waral lu. bilaay de nga xam plein plein yu bari ñu ñu ñëw fii nii loolu moo tax nag waaw. soo ko tey ñu dëkk bi dëkk bi dëkk bi lan la. dëkk bi dëkk bi dëkk bi mooy dëkk bi de. ok how much dëkk bi. moom mu ne dëkk bi dëkk bi dëkk bi mooy. oncle na nga def. maa ngi fay na nga tudd. Mohamed Silla. so lan moo la andi si Gambia bi. man fii laa man Gambien la waaw. soo ban dëkk nga jógee. Sabi. Sabi Xase. waaw. dëkk naar la wala. dëkk Saraxole la. ah dëkk Saraxole. Basse. Bori waaw. waaw. so da nga holidays wala. non man Gambien la fii laa nekk fii laa dëkk. kon lan moo la fa asi. si fan. ci aéroport bi. suma yaay pour ji waaw Dakar waaw. Ça va, allô? Ça va bien? Oui, ça va. Tu comprends français? Oui, jusqu'à un peu. Un peu. <laughs> Comment tu t'appelles? Moussa, Moussa Silla. So, tu es à le dëkk ban Mali. Mali, Ah, tu es Mali? oui. Euh, ok. So, pourquoi tu, tu veux aller à la maison parce que ta, ta mère est partie? Voilà, voilà. Mm, ah, désolé pour la décider. <laughs> ciao ciao. merci beaucoup merci. waaye yéen jël leen paa bi how are you. I'm fine. What's your name? Ali. So what brought you in the airport today? I'm going home. Home? Oh, you're saying bye-bye to Gambia? Yes. Why? Well, I have to go home. I have to get the flight. You have to get the flight? I have to get the flight. So which country are you going? Scotland. Scotland. But I have to go to England first to get a train to go to Scotland. So how do you see Gambia? I've seen Gambia a lot of times, about 25 times. So I like Gambia, but it's getting very noisy. I don't like noises. I like peace and quiet. That's the problem. And so, I lose a lot of weight in Gambia now. That's another problem I have. Every time I come, I lose about 10 kilos. You used it? I lose about 10 kilos. Oh. Why? I don't know, just my body just is finding it tough now. It's tough to live here, it's hot. I like the sun, but it's just something that happens every time I come here. I always lose a lot of weight, except when I first came. I only used to lose about maybe two kilos, but now I can lose maybe eight, ten kilos. It's just that's the way I am. I'm just like my father. Oh, sorry about that. Same. So, do you like Gambian foods? Yes, but I have to be careful what I eat now. I've got allergic problems, allergies. You know what? Which kind of food? I can't eat carbohydrate, eh, um, cereals. You know, like wheat, um, even rice, anything like that. I can't eat it. Okay, that's good. Thank you. I, I, I live well. I do very well. I know Gambia very well. How many years have you been here? 23 years. 23 years? Mm -hmm. Oh, that's good. Thank you. Okay, thank you. Gis ngay smell, mala da smell. <laughs> Ah, tuda? Man mo lamin. Ah, da nga muna sanse de. Ba lolu la. I'm rek attaque nga. Non, man rek estila. <laughs> Ah ageng moom rek esti la esti la ah. waaw so da nga nekk di ñibbi wala waaw dama ñibbi ban dëkk nga dem oh England England neex na neewut Gambia moo daa ah, lu tax nga ne England neewut dafa seeda trop ak taw Just so I prefer Gambia so why do you prefer Gambia because of that yeah because the weather is nice like it's a better lifestyle here because there's no life in the UK in it really yeah it's just stressful down there so I ah, lan ngay wax ñi nga xamante ne ñoo sa boys nga xamante ñu ngi dem back di bëgg di dem tukki. it's not worth it the life in UK the life in abroad is not worth it like risking your life if you get there you're gonna get stressed off as well. So put them on one guy. If you Suneke and Yoda phone is the best thing for you to go out there. You can try about one for money you have to risk your life to go to UK. Because one thing is if you got so I gave over, that's one out. amul life life moom koy amun ko soo fa àggee fooste mooy da nga war a uti paper soo amee bala ngay am paper loolu problème la te yow da nga war a jànga soo jàngul tam beneen problème la especially Gambian news ñu bare du ndee jànga soo luñ dee foog mooy suma àggee aaf rek dama ko méeg so te loolu it's not reality like fake life la fake scenario is all about all about those things so life in UK is not easy I can't say much but I think that's enough. Uh, Mm, I'm a favorite though. What? Because I can eat anything, so I'm fine with anything. What am I gonna say? Maybe subakanja. <laughs> Yeah, yeah. You eat it with spoon or with your hands? With spoon. Really? Actually, with spoon. No. Next time, try it with your hands. Oh no, I'm not gonna do that anymore. I don't do. I don't do that now. Before, yeah, but not not anymore. Oh, okay, thank you. Yeah, thank you so much. Bye. I'm white and red. Nanga alaikum salam dama la seen rek ma xam ne yow sant kan nga ak sa kaab you know da nga mën a you know yaa see man nekkut maalaw de man gam ya, man maa ngi fii rek <laughs> so lan moo la indi si airport nah, suma xarit moo nekk di ñibbi na moo tax nga sant nii ah ni kay moom li nekkul sanse sax li ah, sanse la di ah, ah. yow nah. sa xarit décembre bi jeexagul moom mii ñibbi ah moom time am bi jeex jeex na fii moom foofu mu dem mu liggéey yow naka nga gisee eh, holidays bi ak sa xarit bi. ah he enjoy his holiday definitely. enjoy yeah. so ah, naka nga gisee Gambia. Gambia ah nee naa soo amee xaalis nee na soo amut xaalis neexut <laughs> dëkk bi moom loolu mel ni non. maa yow bokk la si booy bu dem baak. am baak wee moom yow soo amee chance lu dem <laughs> ah ana yow dem baak wee ah, sista bàyyi loolu fo buka ko dem léegi da nga bu ko nega fi gambe Gambia dafa neex di. si yow. ah nah, ñàkk am tok am tok gem yalla rek. Nah, alhamdullilah kon. thank you. ah respect. def. may ko nakam la simple rek mané wa ban ma na ngi ni nak ah si naka. sa sante la. <laughs> so ah, ban dëkk nga jógee. non man jamani la ñëw man ko nekkoon ne tey laa ñëw suma onku la jël si tey last week la ñëw man. Oh, oke. Ah. so naka nga nekk di enjoy holiday. Muy cool. Uh, Gambia, no place like home, you know. Gambia is nice. So yaakamti nga ñibbi wala? Man yaakamti ko am family sama jabar ak sama doom. Ah, ma nekk fi on the time nekk fa. So I have only eh, to go back then. Waaye bi ticket de. Dafa seer moom de. Lu waral loolu? Ah, mooy la. fu nekkal. <laughs> Bobay. <laughs> Eh, ni nga été naata. Yé dang jang. waaye su ma saagee naa feew. <laughs> waaw man saagagu ma kenn. waaw kenn non dama laa woon rek. Ah. waaw. <laughs> kan nga ñëwoon gunge suma sista. sa sista. moo soo moom dafa ñëwoon holidays. waaw la jógee. Amérique. soo moom mi ngi ñibbi naka ngeen enjoy ne holidays. it was definitely nice nga ko xam ne da ngeen gëj a gisante mu ñëw a ñëw holidays you know to meet up the family you know it's very very ak joy boobu noonu is uh, uh, bi jeexagul moom mi ñibbi. mom, moom dafa tell a Because sax bi ko dafa ñëwoon si saraxi paa bi wan yee bi so loolu la ñëwaloon so mu ngee dem noonu waaw. so enjoy ngeen ko wel. ah ah nga sarax moom kenn du wane day daf ko enjoy I probably being with the family is very nice. definitely thank you. no thank you for thanking me. <laughs> <laughs> welcome for welcoming me. Ah, Hello. What's your name? I'm Patrick. So which country are you from? From Germany. So what brought you to the Gambia? My brother Buba. Yes. I visit my brother, yeah. We saw a lot of stuff. He showed us everything, educational, university, schools, Faraba. We saw a lot of nice stuff, yeah. And I hope I will come back soon. Really? Yeah. So, do you ever come to the Gambia? Uh, me not. My mother went five years ago here. Really? Yeah. She did a big project here. Really? Yeah. So, hope you will enjoy it. I hope so. <laughs> you don't go, come, come, come here. Why are you running? <laughs> Why are you running? <laughs> Why are you running? So, how do you see the Gambia? Gambia is really nice. The people are really socialized together. Yeah. They are really happy, even if it's like not so like even the poor one. Everybody is happy, enjoying the day. Good sun. The weather is perfect. So it's really really nice here. Come here. So how are you? Hello. I'm fine. What's your name? Maria. So which country are you from? From Germany. You also from Germany? Yeah, we a group of students. Oh, yeah. That's nice. So you come here for holidays? Um, no, not only for holidays, but also to learn the culture, to see Gambia. It's very interesting and very different from Germany. it's very cool. Do you like Gambian food? Yeah, we uh, also cook together with Gambian women. That's nice. Yeah. Thank you. You're welcome. Bye. I am not the semester today. The semesters are here. I think you should talk to them. Huh? <laughs> What's your name? Ibrahim Adiba. Okay, so tell us what is airport? Well, I'm here to pick somebody up. Okay. Yes. So how do you see the Gambia now? Well, Gambia is Gambia for everybody. You either like it or you don't like it. Gambia is Gambia. And Alhamdulillah, we are thankful for the peace and the stability. And we are grateful for everything that Allah gave us. And what can you tell us about the illegal operation encroachment, the demolition? Well, um, uh, it's an unfortunate situation. I mean, I think you should give um, uh, enough of uh, notification to the people that you are going to um, demolish their shops and um, uh, personal properties. You understand? Um, uh, um according to them, they have notified them. But um, uh, according to the other side, uh, they haven't been notified, which is very wrong because these people, this is where they have their livelihood. So really, you should provide an alternative for them before you take what they have. I don't know if you understand my point. You should first provide. I'm going to take you out of here, but I'm going to take you somewhere else. You know, but they, it seems that they don't care. The, people who are doing demolition say they are doing what they, they, their responsibility, but the, the assignment is being given to them by somebody. That person should I mean, really provide an alternative for the, uh, the people. Have you been affected about this demolition? Uh, well, personally, I am not affected, but it's not about personal. It is about collective effort. I mean, um, a poor person, a vendor, I mean, um, uh, selling I mean, is affected. Uh, um, indirectly or directly affected, of course, yes. So you didn't support this demolition. That is what you're going to tell us for what? Well, um, um, I think some some areas is necessary, but some areas um, um, uh, it's not. But my, the whole point is they should give them enough time to look for an alternative. That's what that's what I'm gonna I'm, I'm, gonna. But the government has been useless about it. So the whole thing. My concern is about the thousand dollars that we pay for, at the airport here when going and coming. You know, for for a, a person visiting your country and they ask you to pay uh, before you land, before you get into your own country and before you go out. I think it's not correct. It's not right. That need to be that need to be settled. So what is the reason why you guys are paying that thousand dollars? I have no idea. We are just paying. They, they're collecting this money from me. And they, they should tell me what they use this money for. I mean, and, and I've seen nothing. I mean, nothing, nothing has been improving in this airport. Nabia, what lu ma jaaxal waa airport bi ku nekk du ñu laajte ana Fat Samba Ndaama xanaa Fat Samba dafa gàtta Fat Samba dafa gudda <laughs> non léegi waruñ ko di ko ooyee Fat POJ madame POJ lañ ko war di ko oyee bàyyi leen léegi man maa leen wax kenn mu ko oyeeti Fassam da leen ko oyee madame POJ moom looloo koy nee <laughs> looloo koy daaneel ko am sa séeri booy nan <laughs> nan mu ne moom mooy séeri POJ waaye moom nag ni ñi ku romb naan ana Fatou Samba Ndaama ana lu dafa métti nag xam ko fii Big Faa mu ne fii loo fi yaa ñoo defar ko wala du Big Faa ma ko foog naa big femme big femme moo ko. mënu ah, ah, ah. wa Fanta ñu wax Fanta man ndaama ndaama ndaama. waaye am ngeen ku ngeen fàtte de. Baabu borom karaate. non Baabu may wasi moom Baabu non <laughs> baabu dafa amul paas paas sama ne ko soo ñoom ñaar yëpp dañ leen jël saani leen a côté te ñu ñoo leen fi ñëwaloon gis ngeen tey Semester Avenue bi ñun rek dafa xumbate dagan fa sama ñoo ko gën a xoolal ñoo ko gën a uppa feem ñu dox ñu dox waaw gën gën di cekes cekes gën gën ndaje wi ndaalu Tamba gis nga ñu ñun engrais dang day jéem a windaal ñun suñu windaalu rek am classe koke waa nañ windaal wàcc ciri man nak, duma dem te nuyuwuma man suma caméra lady bi dama ko loof parce que any action rek daf ko day jël kii ku seytaane la man duma dugal kër di tax <laughs> moom moo génnoon tuuti mu des wa man suñ caméra léegi bi moom jàmbaar la ñu ngi kontaane image yu rafet yi ngeen a gis fii ni yëpp si Semester Avenue tey ku fa nekk moo nekk ne. Fatou Thioro. Borom. Lamine moom mooy Borom Lamine ku bugg a dugal Lamine rek da tiritiri naan ccc gamentale bombom kon nu ngi ko daan defee saa su ne ak yéen si suñ show Semester Avenue di ko amal nag si bus bu ay wu nekk kon di leen ñu follow Gamien Talents TV let's go bye bye I was waiting for this semester right here. maa ngi xaritu sàpp déggin daat saay soo déggee dexin si pasi pasi man la dee jógee It's time for Semester Avenue. Let's have time. Let's have fun. ngeen ma doon ñëwee fii jaar na more than five different airports yi waaye amul airport boo xam ne laaj nañ ma ma fay xaalis. lu ma si gën a ma ñëw suma own dëkk fu ma juddoo fu ma yaroo fu ma may fay xaalis loolu jaadut. alright naka woon sa holiday. it was alright it's, it's fine I enjoy it. seen dëkk baa ngi bu affaire yi naka la ngelaw bi mu ngi xala fuuf ak yooyu noonu. foog naa ne c'est perfect time ak yooyu. dama just ñëw rek dama ah. dama ñëw ñëw ma holiday dama dellu si. dama dellu si. I left here since uh, uh-huh. so maa ngi a ñëw nii. Dumoda. <laughs> Man, Durang, Durang. Durang. Wow. You like it with loho or with kudu? I like it with pan. With pan. Ah, yeah. Ah, sama sana. Man, ke burung bus? Man, bus? Man, ke sini capa col burung? Mama ada meye bus. Aku